xam sa démb xam sa xam sa démb xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru senegal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. Sembène Ousmane mii ñuy waxtaanee nag mooy mi ngeen xam. mooy bindkatu téere yu mag yi. mooy defarkatu film yu mag yi Sembène Ousmane mi ñuy waxtaanee ci xam sa démb xam sa tey moo boole Dakar ak Ziguinchor bu ngeen ma teewloo ma wax leen lu tax Sembène Ousmane mooy borom jom ja mooy ka nanguwul woon a sëngéem Sembène Ousmane mi ngi feeñ ci jamono benn fanu janvier 1923 ca Ziguinchor ba mu juddoo teg ci ab diir ñu ganale ko wutal ko tur tuddee ko Ousmane moom Sembène mooma ca la dalee ecole at ya ca topp école primaire booba nag mooy école Escale 1931 la fa dugg waaye nag yàggu fa mottaliwut am njàngam ndax daa jàppante ak directeur ba jiite école ba kon 1938 semm dëm sax àggut dañ koo dàq delloo si ko nag ay waajuram fii ci Ndakaaru waaye mu mujj a bàyyi njàng mi Sembène Ousmane 1939 la door nekk apprenti maçon di ànd ak rakki baayam Sembène Ousmane kon mën nañoo jàpp ci liggéey yim def ci maçon 1941 tabax lycée Van Vollenhoven ca Dakar ñu tuddee ko Lamine géey tey waaye 1941 bañ ca tegee ay at Sembène Ousmane ci lu toll ñetti at mu daal di dugg l'armée tubaab yi dem Niger bokk ci juróom-benneelu régiment ci artillerie bu tubaab bi ba mu defee fukki weer ak juróom-ñett service militaire am jeex mu ñibbi ñibbisi Dakar 1946 semaine Ousmane Mooma bi mu dellu see yëngu ci tabax ay kër yu mel noona dafa mujj jël ci bato yu mag yi doon Pasteur moom la jël bato booba dem ca France dëkk bu ñu naan Marseille ma àggee Marseille nag daf doon nekk docker nekk docker ci vieux port ba 1950 mu ne moom mun a toog di xoole dekk ci syndicat bii ñu tuddee confédération générale des travailleurs CGT daa di cay bokk at ma ca topp mu ne du toog te deful politique daa di nag jënd kartu parti communiste France ca noona muy def fu ñuy def téere yu jëm ci syndicat mu dem fa liir ak lu jëm ci parti bi ca la sax dooree jublu ci am mbind la woon ku soobu woon la ci lim gëmoon ba taxoon lépp luy génn dox ñaxtu doon xeex guerre yi nga xam ne tubaab baa ngi koy xeex ca Algérie ak Indochine moom daf doon jóg ànd ca kon 1956 ca la roman bu njëkk di fent nettaleem génn ñu tuddee ko le docker noir ca at mooma bindkat yi ak artistes yi nga xam ne ñooy doomi Afrique daje di waxtaan mu bokk ca congrès bu njëkk booba ñu jàpp ne Sembène Ousmane ci syndicat ku ci yëngatu woon la loolu moo tax sax mu mujj a doon secrétaire généralu liggéeykat yu ñuul yi nekk France waaye nag kim gëmoon gis-gisu politique am mooy Karl Marx moom la gëmoon ba amu ci sago ba tax mu dugg France bi PAI parti africain de l'indépendance amee moom mu taxawal ko fa kuréel ca Marseille ca 1957 xam sa démb xam sa tey di wax waxtaanee waaju baax góor gu mag cinéaste bu mag bindkat bu mag Sembène Ousmane 1959 1959 jàpp leen ne ñaari at ginnaaw bi mu génnee roman bi di fent nettali di OPI moom boo peuple Sembène Ousmane fekkee na ñaareelu congrès bi nga xam ne bindkat yi ak artistes yu ñuul yi ñoo ko doon def ca Italie ca Rome waaye 1960 nag ca la lu bëri soppi ko ndax ca 1960 la génne téeram bu bi bout de bois de Dieu les bout de bois de Dieu mooy bantu maam yàlla yi mu cay nettali grève bu métti bi amoon ta nga xam ne cheminots yi ñoom ñoo ko grève woon di xeex seen i yelleef Sembène Ousmane gedd nationalité bi ko France joxoon démissionné ci parti communiste français démissionné ci PAI ñibbi si Sénégal ñaari at ginnaaw bi mu ñëwee Dakar Sembène Ousmane génne ay nettali yu gàtt yoo xam ne mi ngi ko génne ci téere bu tudd voltaïque waaye mu ne lii doyu ma ndax damaa bëgg a wax ak nit ñi te ñëpp mënuñoo liir mu dem ca Moscou ci Russie studio Gorki mu dem fa jàng fa nu ñu defaree cinéma bu gàtt bu tudd borom saret 1963 mu am ca ca dëkk bu tudd Tours ca France prix bu am solo ca noona mu boole bind ay téere ak euh, defar ay film génnee benn téere bu tudd L'Harmattan génne waale 1964 benn film bu gàtt bu tudd Ñaay ay 1966 festival mondial des arts nègres Sembène Ousmane am na ca ñaari raaya ndam lu njëkk li téereem bii di cosaan moo ko am loolu doyut filmam bii di la noire 2 ñu ne ko ñi defar film boo xam ne ci fenteef la te muy film bu gudd lool yow moom yaa ci gën a ràññeeku ñu jox ko ko film boobu sax boo koy xool fu ne ci àdduna bi am na fa ay raaya biñ ci mën a jàpp rek mooy tanit d'or di wurus wi nga xam ne am na ko ca Carthage Sembène Ousmane kon filmam yi am nañu raaya xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam sa tey di waxtaane Sembène Ousmane barab bi nga xam ne ci gën a mag ci cinéma la bokk ci festival de Cannes 1967 ñu jël ko boole ko ci ñuy tànn film yi ak ñiy joxe raaya yi ñu teg ca at mu defar film bi ñu tuddee Le Mandat ñu jox ko raaya ca Venise ca Italie ak ca États-Unis ca Philadelphie waaye loolu doyu ko 1969 Sembène Ousmane ak ñenn ci ay naataangoom yu yëngatu ci cinéma daal di samp nag ayu bésu cinéma ca Ouagadougou ca Burkina Faso nga xam ne sax moo jur lii ñu tuddee tey FESPACO di festival panafricain du cinéma de Ouagadougou loola nag ña ngi ko defoon ñoom ca 1972 kuréel gii nga xam ne moo dajale képp kuy liggéey ci cinéma di ci yëngu ci Afrique di faire partie ci ñu ko sos dooleel ko téyu ko ca la bokk ñu ne ko ana loo mu naa bu gàtt bii di taaw ñu ne ko loo ci teg mu ne film bu gudd bii di émitaay ñu ne ko kañ nga leen génnee mu ne 1971 te doyuma ñu ne ko loo ci teg mu ne xanaa film bii di xala ñu ne ko kañ nga ko génnee mu ne 1974 ñu ne ko foo ko jëlee ci xalaatu kan mu ne sama xalaatu bopp ndax maa bindoon sama roman di fu nettali téereb nettali bii nga xam ne maa ko génne woon 1973 Sembène Ousmane xam sa démb xam sa tey Sembène Ousmane xam nga 1976 àdduna bépp dañoo jóg taxaw ndax dafa génne film tuddee ko ceddo Senghor ne ko film bi kenn du ko fi teg mu ne ko lu tax mu ne ko da juum ci mbindum ceddo Sembène Ousmane ne ko duma ma génnee mi ni ma ko bindee waaye film bii nii laa koy téye ca jamono yooye sax adduna bépp woo Sembène Ousmane ñu ne ko kaay président de jury Berlin 1977 kaay président de jury New Delhi ca festival ba kaay Fespago 1981 ñu ne ko Mostra de Venise bokk ci jury bi 1983 ne ko kaay nga bokk ci jury wu 1984 festival de Rio muy rek yi tuuti yi nu mën a lim ci dayoo bi ko adduna jox Sembène Ousmane kilifa la moo tax àdduna daawul doyal ci moom waaye nag moom loola du ko woon a tere muy defar ay film loolu moo tax 1988 mu génne film bu rëy boobu di Camp de Thiaroye yi nga xam ne tubaab yi 1944 1er décembre dañoo boom ñi nga xam ne ñoo demoon guerre te ñibbisi rey leen ba pare teg ko ci ay kàcc ne ñooña dañoo jógoon di xeex Sembène def ce film bu rëy film boobu nag OUA mooy mbootaay gi dajale réewu Afrique jox na ko raaya UNICEF di mbootaayu xeet yi nga xam ne mooy yëngatu ci lu jëm ci ngone jox na ko raaya cey ba Gélawar génnee 1992 ba Gélawar génnee Sembène Ousmane song réewu Afrique yi bëgg a dëkkee yalwaan ak ñàkk fula mu dat na leen tàllal benn baaraam joxoñ la waaye tàllal juróomi baaraam yalwaan la 1993 nag la Sembène Ousmane jot raaye bi gën a rëy ku yëngatu ci mbatit mën a jot muy grand prix du président de la République du Sénégal pour les lettres ñu jox ko ko nag ngir sargal liggéey bu rëy bi mu def ci mbatit ki nga xam ne moom lañ tuddoo woon taawu ñi mag ñi te journaliste culture bu Burkina Faso sagal na ko sargal ko mbedd FESPACO yi boo demee fekk fa jëmmam mu taxaw Sembène Ousmane moomu FEPAS yi sargal na fanweeri atam ci cinéma waaye nag Sembène Ousmane nit ñi yaakaar ne dafay noppalu mu ne déedéet déedéet du ma noppalu ndax noppeeguma ci nettali nit ak ñu ne ko looy def mu ne damay génnee film 2000 mu génnee film bu mag boobu di Fat Kiné ñu ne déete waay 2004 mu génnee film bu mag boobu di Molade kon mën nañoo jàpp ne kuy wax ci cinéma munoo ko wax te waxoo jëf ju rëy ji festival de Cannes def jël Sembène Ousmane ne ko kaay nga jàngal ñu Sembène Ousmane nag kenn du tudd adduna bi cinéma te tuddoo ko waaye defe naa ne raaya bi gën a mag keroog ba Sénégal ne kii wërsëg la kom la muy dund moo xam ne Sénégal moo ko jagleel adduna waaye at rek lañ ca teg mu wàcc nag liggéey 9 juin 2007 gàcce ngaalama Sembène Ousmane doomi Afrique Burkina jàpp ne ñoo la jur Sénégal jàpp ne moo la jur Afrique gépp jàpp ne moo la moom doom bu baaxee bëri baay bëri ndey Sembène Ousmane xam sa démb gàcce ngaalaama di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Institut